yo woppudar kono ha baaba ha joni mine mine ma mine ma min ah, min do anan tan kam ar tiiɗi hoore koye ana rewidare est ce que tewɗo dewtodare no yo tiiɗo ni hoore wona tidde eh, hoore tegal nge boppa lawaka eh. wona tidde hoore baaba jinmi ko jewten mbason mbasen coupé na ok mali ki xam Hmm? xam na ko kay moom ah. dañ koy ñàkk kersa di <laughs> ci de. waaw kay ñoo xamul noonu. il parlait de quoi. il parlait de daara quoi. ko kon sax li mu wax nii ah, naa daara ci olof ba ba ci foofu mais mu mujjee wax nii ba jékki-jékki. waaw daf maa laaj ndax jàng nga daara ma ni ko waaw jàng naa Thierno daara tamit Djibril Wane ak Thierno Souleymane Dem jaar naa foofu. Hmm. ma wax ko yooyu yëpp jaar naa ci suñu waa classe yi ñoo def sax ma bàyyi daara yi parce que après suñu waa classe yi dama doon wax daara bi laa ne fay yëlwaa ni xëy du ma yelwaan añ noonu laara biraan laa doon yelwaan ak euh, voilà quoi indi kaalis. nee na da léegi <laughs> nag xam sa bopp. ah na da nga bopp da nga xam sa bopp tamit. non dama ko nekk di expliquer te li ma ko expliquer lu buggul accepté quoi muy affaire modernisation yi quoi. comme ni mu nekkee ay daara yi nekk ñoom. Aden Sall ñu moderniser ak yooyu. loolu moo ci laa ci laa ko bëggoon a wax quoi. loo loo mu doon wax sànq. Moussa laa la doon wax ne ko kos bi nice na. mos bi mos montre bi nice bi aussi <laughs> nice na xam nga couleur kos bi tamit joxe na xam nga weer yi tamit ni ko tegee joxe na kon bopp bi moo joxewul <laughs> bopp bi moo joxewul wul parce que bopp bi moo joxewul maanaam doo réfléchir. non bopp bi non bopp bi dafa ndaw waaye ak mun réfléchir. <laughs> Ah, ak mun réfléchir def ko wàccul quoi. ah d'accord nangu xam nga loolu affaire ah, journaliste kii la quoi non def ci 1500 quoi ah mais def si kanamu invité am di <laughs> <laughs> daay <laughs> waaw mais def na cap bi. te leer na door na wat bu naay aussi bu naay gis nga woon denn bu laa jëre xam nga nag gis nga nag gis nga nag <laughs> dafa loo xam ne bi nii bu yàggee dafay soof non non bii dafay soof bi amul sens waay <laughs> mais ça c'est quoi ça la woon daan li jaaxal waa dafa invité waa ji waa ji ñëw daan mu génn déposé waat waa la <laughs> lay wax bon. oui ma. ci kii bi kese bi. burukaat maa ngi si quoi. yaa ngi jënd xam nga dafa am loo xamante ni amul sens. am na sens non dafa am loo xam ne amul sens. lii jour bi mu jàllee jàlle na quoi jàlle na bantamba na fépp nekk di wane waaye amul sens. amul sens amul sens amul sens. amul sens barke Rasulullah amul sens non si si non si non amul chance ah bi yóndim bi am na jom moo njëkkee fay nag oh non mii tey tey bravo mii fay na waaw mii fay na non boy yow tey non tajal tajal naa la lan tojal naa la lan jinax parce que yow doo am ti jinax <laughs> ngay oui. mais naka ndëgg bi ba si digg bi xanaa. depuis loolu kay dafa mel ni. normal waay dafa mel ni <laughs> kii yow kii. kii bi mën naa ko indi fii. mais est-ce que mës na am combat moom. bàyyi ko quoi. man maa ko ah, ko daaneel ma ko combat mu njëkk mu nekkoon ak ah, bi mënu ma daan. en tant que comme entraînement lañ nekkoon ma may ko mu daan. mais dafa mel ni am na yenn protocole yu mu respecté wul parce que daan bi moom daan bi métti na trop. surtout ni nga noonu. nga gis dem moo gën a garaaw. waaw. njool na laaj na te dana la dóor ba nga. gis nga ni nga tëddee noonu. <laughs> bon wàllu ah, Massata Diack <laughs> wàllu ah, Massata yaa dàq jënd kaset waaye jënd leen lii waay kenn mën na ko résidurer. waaw reprendre. Masata Dia. yow nga jëndee kaset bu ko ñëpp jëndee woon kaset mu neex.

mais man ngaa jaar impression comme génn nga du biir ma je vais payer non biir bi bii réer rek kenn saa la bii réer rek da ngi dégg mais nag ban ñii ñii ñii ñii jubul ñi mais may ma ne na may ma dafa ne démb barki démb joxel ñëpp yorom man maa ko géré yaa ko ne lan mais c'est pas ma ne ko wuu c'est pas donné à tout le monde c'est pas prêté à tout le monde. c'est pas tout le monde qui paye. <laughs> c'est pas tout le monde qui paye ah oui ah, Adama Kandé ba léegi. man fay naa la wala fay ma la boo yóbbaale na sama. xaalis kaset bu non mais yow ba muy dem fekk yow génnagoo kase kase bi génnagul. waaye kaset daaw nee wax kaset ren. fayal ko ngay kuréel kër gi ci laal jabaram de xanaa mu xaar piraat. <laughs> jabaram xaar piraat te ku ngay su koy seetaan day am bàkkaar te mu li mu jënd nekkul alal alalu sàcc la loolu alalu sàcc la boo seetaanee piraat bàkkaar rek ngay am ah, yaa ngi am bànneex waaye yaa ngi am bàkkaar sa alalu sàcc nga jënd receleur nga <laughs> receleur nga ay surtout ay surtout ante joxu ma ko joxuma daa daan fay nag ay sat yow waaw joxaguma la ko na fi moom ah. fay naa la man yow <laughs> nga yow fay ah. a def nii waaw moom laa lay booleel ah kooku nag dégg nga maam kooku niir woon nag doo ñëw fii de ndax lan ñaaw góor <laughs> góor boobu nga xam ne sama fekk nag affaire diine rek moo leen di ñor. ñu ñaaw ñi foo leen fekk ay guddee si kii diine rek waaw. noonu la ko sama yaay taamoo si si kii mu cere <laughs> rafetul de eh. Eh, am na waa ji ñuy wax Umar Umar Umar kii Umar Ba mi ngi Port-Gentil Gabon quoi uh-huh. Port-Gentil Gabon tàggatool gaaw euh, Umar war naa ko yóbbul ay kaset <laughs> kan moo nekk si bi di def rôle lanteer bi ndey aada lii moo tax dina yàgg rosa rek moom it di rosa ba sonn du gis ku ko nii wala gis ku mu ko takkal ci lex wala ku mu ko takkal ci ci eh, ko takkal ci sëriñ dara nag ndey aada moom namul dara namul lan namul dara ndey aada ndey dara non quand même ku dafa wax xanaa gisoo ndey aada wóor nga ko duggal ak moom rek laaj wax am namul dara du la ko jee ne nga kam na mana na mana de tàggatoon bon waaw Matata Diak wan doof Matata Diak dégg nga maam ah ni ñu mën a mel ndax sa baay mooy Lamine Diak sa baay daa tekki démb ci réew mi tey soog a ñëw ñi lay kole motifa ak ak galgal motifa yaa ngi dégg ak xam nga motif bu mu la tax a découragé yow sa bàyyi de ba tekki démb démb si réew mi tey soogu ñëw waaw waaw loolu nag bu mu la tax a découragé jaas wallaaw. wallaaw moom na nga ci profité rek saabu sangu bu baax a baax. waaw et puis demain ñu ñëw ci beneen humour beneen facette. loolu daarul la nar a doon daarul masatu jaak. Ah. neex. incha allah <laughs> <laughs> merci beaucoup on se retrouve demain inchallah pour un autre good morning d'autres invités et puis <laughs> <laughs>